euh, mon frère moi je ne suis pas là pour F24 je suis là pour euh, mais membre F24 là yaa may dégg bokk ci euh, conférence des leaders F24 en, en tant que ak suma mouvement euh, pacte républicain vous voyez mais aujourd'hui je ne suis pas pour faire le procès de F24 F24 li nga ci seetlu dañu nekk entité bi nga xamante ne ay nit ñu bëri ñoo fa nekk ay mouvement yu bëri ñoom ñoo fa nekk ñu wax ci turu F24 te F24 yebaluñu li nga xamante ne moom la F24 doon feeñ mooy mooy pression populaire bi na ba Sénégalais yi wax ba Macky Sall delloo ginnaaw yaa ngi naan constitution moo ko may constitution mayu ko ko Macky Sall li tax mu delloo xam na ni warul mën a def troisième mandat te ñu bu baax a baax. beneen bi li nga xamante ni moom mooy F24 F24 mooy li mu war a xeex te yaakaar naa ni ñi ngi ci te ñu koy xeex. te ñi ngi ci ñi ngi ci plan d'action yi mooy ñëpp bokk ñu war a bokk ci élection yi ñëpp bokk te doo xoolee tey ñi nga xamante ni ñoom ñoo demoon ci benn dialogue bi mooy dialogue Macky Sall bi ñenn ñi ngi ci F24 F24 sànq nee naa la ni muy doxal nekk li muy doxal lépp moom moo ñu neex mais dafa doon entité bi nga xamante ni ñun ñëpp ñoo fa daje te kenn ku nekk am nga sa kiirlaayu politique am nga sa schéma politique bi nga xamante moom ngay doxal ñun ñu ne ko fa ñukku ña nga fa fu ñu F24 woowee ñu ñëw ànd ak moom du amee réflexion ñu ñëw joxe suñu gis-gis mais dañ instant tey bii ma lay wax ñun li ñuy ñor moom mooy coalition ñun ñëpp ak Ousmane Sonko nan la ñuy mën a fédérer suñu force pour que Ousmane Sonko si guuta bii nga xamante ni mi ngi fa nekk prison 17 jours lekkul nan lañ ko fay mën a génnee pour que vraiment ñu mu mën a continuer li nga xamante ni moom mooy combat am pacifiquement dans les règles de l'art suñu suñu suñu